day corne mu mel ni kon ñu war a waxtaane Cheikh Ibra hmm. Sëñ Mbàkke tijjil ñu loolu am na solo hmm. ci tënk rek comme ni jotaay bi tënkoo hmm. mu mel ni Cheikh Ibra xam Cheikh Ibra Fall nag yombut Sëñ Asadul Xadim waaye sunu kéemtalaay kàttan maam seex nag bu ñuy indi ci taarixam lu gàtt rek lañ dañ koy tënk ndax Cheikh Ibra Fall euh, bu ñuy wax askanam wala fi nga xamante ni fa la bàyyi Asadu damay faral di wax ne Cheikh Ibra kër ndaayam mooy kër baayam waaye kër baayam it mooy kër ndaayam ndax keroog bi nga xamee ne maam Amar Fall mat naa samp kër dafa dem jare ñu jox ko fa maam Roqaya Njaay mu am ci Ahmadou Fall Roqaya Ahmadou Fall Roqaya mat a samp kër delluwaat njare ñu joxaan ko fa maam Seydou Njaay mu am ci Cheikh Ibra Fall ak maam Saliou kon Cheikh Ibra Fall kër maamam ba ci mooy kër way juróom tamit loolu kon day mata matale foofu mu ganee jamono tamit suufu Touré Atoumane Fall te histoire nag indi na ñi ne nañ mille huit cent quatre vingt cinquante six mhm. ñi ne nañ cinquante cinq waaye nag lu ci mën de am ñaari taax yooyu moom ñëw na waaye dañuy bañ a sukkandiku feneen ndax ñaari yëpp mag a ko nettali léegi nag Cheikh Ibra Fall feeñ jamono hmm. léegi feeñam jamono it dafa indaale kéemtaan hmm. kéemtaan googu mooy ku ñuy wax Serigne Abdou Awa Ndiaye bu mbëri dafa nettali mbokkum Cheikh bi Fall la ci njaayeen dafa wax ne Cheikh Ibra Fall karoog bi nuy feeñ jamono daa indaale kéemtaan nee na karaw gi daa fees yaram bi mu indaale fan bëñ ak lu topp karoog la maam seeni bu njaay ne indi na mbër ci làmb ji waaye xaw ma fan lay bàkko bàkko wa nag Baay Musaa Ka dañu ko waxoon hmm. jaaraama ndey sëy na bu njaay hmm. la soxna jaara yor di jaay yaa ko mosal waa njëre ñaay saw ŋàññi rot na yaa taxe léegi bàkk wa nag ba moom la Baye Moussa Ka di leeral mm-hmm. léegi Cheikh Ibra Fall nag feeñ jamono kon ci suufu ture Atoumane Fall mm-hmm. jàngit ba xam la mu war xam ndax Cheikh Ibra Fall way juram wu góor moo ko dalal alxuraan mm-hmm. muy ma Amadou Fall Roqaya Roqaya Njaay ko jur Sayar Maram ma Njaay Fatim Babacar Wàqi Samba Sadio Demba Njare Mbaaburi Njaajaan Njaay te Njaajaan Njaay dar la woon ci réew mi kon ci taarix rek Cheikh Ibra ci Njaajaan la bokk boo demaatee ci geneen wetit Cheikh Ibra Fall dafa bokkaat ci wetu dammel waaw ah, dammel man desit man mm-hmm. euh, desit Fall mm-hmm. moom meñ ñi yore njëbbi Fall mm-hmm. Biraan njëbbi Fall ma Fall Biraan Amal Fall Biraan may sa bige Kumba Fall Ahmadou Lamine Fall ak Amal Fall Saar Ndiaye Amadou Fall Saar Ndiaye moom meñ ñi Biraan Rokhaya Ahmadou Rokhaya ak Soxna Ndaak Fall léegi maam Amadou Fall Roqaye nag meññ Cheikh Ibra ak maam Saliou Fall kon Cheikh Ibra Fall ci wetuk dammel da ngay gis mu fees ko dell lé léegi nag Cheikh Ibra bi nga xamee ne feeñ na jamono nag mhm. nekk ca dëkkum njëbbi faal euh, tàmbalee fa am njàngam way juróom wu góor teel fee bàyyi ko mhm. ki nga xamante si ni moom ak maam Seeni bu Njaay di way juróom ñoo bokk muy Njaay ma moo ko yeggaleel alxuraanam Cheikh Ibra mhm. léegi Cheikh Ibra nag jàng ba jeexal ndax waxoon na ba Ibrahima ko bi may ñëw ci sëñ Bàmba day jàng naa ba jeexal téere xam-xam yi ah. waaye sama borom moom xamal ne jamono ju ne la may def ca kenn laa koy def mm-hmm. te jii jamono li may def def naa ko ci Ahmadu Bàmba demal wëri ko mm-hmm. moo taxoon Cheikh dafa lëm njàng ma mm-hmm. léegi maam Cheikh bi nga xamee nag waxtu wëri Sëñ Tuubaa jot na ah. ndax dañ koy tënk Sëñ Asadu mu mel ne euh, fu nekk mën nañ caa taxaw lu yaatu waaye jël temps bi moo tax lii dina ma neex bi nga xamee ne nag Cheikh Ibra kon jug na ndax wax nañ ne ci kaamilu alxuraan ci la ko Sëñ Tuubaa feeñoo waaw ginnaaw si gi sax maam Saliou Fall moo gis sëriñ bi. Mm-hmm. bi mu xëyee mu ne ko. Mm-hmm. waaw bi mu xëyee mu ne ko sa sëriñ bi day biit ñëw na fii. waaw na sëkk ngeen ko dem wëri ko kon maam Saliou Fall di rakki Cheikh moom gis na Sëriñ Tuubaa leeru leeru Sëriñ Tuubaa. Mm-hmm. waañ ne keroog bi nga ko gisee mu xëy wax ko Cheikh Ibra Fall ne ko sa ñëwoon na fi de jot na sëkk ngeen ko dem seeti ko. waañ ne Cheikh Ibra Fall nekk ca la nekk. ñu xëyaat maam yu Fall ne ko nag demal wëri ko wala man ma dem wëri ko. Mm. parce que man su ma ko waree jee su ma ñëwee maay doon sa sëriñ te man mënumaa doon sa kilifa. ca la Cheikh Rafaal nag jugee euh, njëb bi di wëri sëriñ bi léegi maam Cheikh ci tënk nag jaar na fu nekk. waaw bi Ibra Fall jaar na Badar Gueye maam seex jaar na seen Sine Laykat bi Ibra Fall jaar na Tarba Dakar léegi nag keroog bi nga xam ne bi Ibra mi ngi wër Sëñ Tuubaa nag dafa am nu mu ko doon wëree. Mm-hmm. léegi nag ni mu koy wëree mooy ci wàllu baatin ndax Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra dane Cheikh Sëñ Tuubaa ba may laataa jóge ci ësël loolu nag ca ca kaw la. waaw ñu ñaar dañoo tegoon pala. waaw nee na mu ne ma nii nga may wëre Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima mooy wax ne Sëñ Tuubaa dana ma nii nga may wëre. waaw mas nay xibaar ak njébbaloom. bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bàmba moo la moom ko. jox ko say pexe loolu waxi baatin la. léegi foofu dañ ciy bañ a dugg muy yaatal léegi Cheikh Ibrahima Fall nee na Sëñ Tuubaa dana moo ni nga may wëre daal. Mhm. mooy fépp fu ma nekk. waaw dana am leer gu fay nekk. Mhm. képp ku taxoog man it dana am leer gu may def ci yow ba boo ko gisee da nga xam ne kii ci man la jóge sama doom yu góor yi ak yu jigéen ñi yëpp ay wàllu kaamil la ñuy doon lool nag man képp koy am ci kaw suuf hmm. nee na loolu la Sëñ Tuubaa waxoon Cheikh Ibra moo tax Cheikh Ibra Fall comme masaana dem dalay jàngat xool ba xam waaw karoog ba mu jógee karoog ba mu demee tay ba Dakar xool ba xam ne kii daal ko baax la hmm. waaye nag bokkut ak muy wër waaw bàyyi Cheikh Wade Ndiaye nag doomi Sëñ Mor Ndiaye Sala waaw Sëñ Mor Ndiaye Sala ci magi Cheikh Ibra Fall la bokkoon Cheikh Ibrahima Fall daana waxtaan ak moom ci alxuraan. waaw Baye Cheikh Wade Ndiaye moo nettali ma dégg mu ne suñu yaaram mbay nee na Cheikh Ibrahima Fall nee ko. Hmm. ah doom yaaram mbay mu ne ko Fall mu ne doom ba ma nekkee tay ba Dakar di liggéeyal sama sëriñ ba ab néeg maa ngi ca kaw nee na di hmm. may xool ci penk ba gis sañ Maxtaar Touré ak si yaadama Guèye nee na ñu bàyyi ko Mbàkke Kajoor di ñëw. waaw maam Cheikh nee na may ñuy xool naa naa doom ñee day diglul waxi Cheikh Ibra doom ñee day buñ doon jigéen la doom ma a sëy nañ doom ba na lool Cheikh Ibrahima nee na doom ku ànd ak dara ak ku ànd ak dara doom yomb nañoo xàmmee. waaw maam seex nee na gannaaw jigéen mooy nekk ak borom këram ba ku ko gis ci kollam xam ne dara topp na ko sàkkantuma ak leerug yàlla. léegi maam Cheikh di leen xool naka mi ngi gis ci moom leerug Sëñ Tuubaa gam ko waxoon ne ko ku ànd ak man. waaw dana am leer gu may def ci yow. léegi Cheikh Ibrahima Fall gis leen nag daal di cëpp ca ginnaaw néeg ba dab leen. waaw ne leen fu ngeen jógee ñu ne ko euh, Mbàkke Kajoor. Hmm. fu ngeen jógee ñu ne ku ñu wax Ahmadu Bamba moo ñu nee na maam Cheikh daañu laa doom naka am na meneen mbàmba mu dun mii doom naka am na meneen mbàmba mu dun mii te ngeen a dem ba dëpp su ngeen ñëwee ma jaar fi ngeen jaar fi ma tàggu sama sëriñ bii ngeen yóbbu ma ca bàmba mooma ci Allah keroog bi nga xam ne sëñ Maxtaar Touré ak si Adama Gueye dëpp nañ jaar fa maam seex di tàggu sëriñam booba hmm. lu xorom da caa am nag hmm. maam Cheikh ne damaa ñëw ba ci sëriñ booba ne ko <clears throat> damaa bëggoon nga ñaanal ma ndax am na feneen fu ma war a dem ngir yeggalee fa sama liggéey nee na mu ma ah, Ibra Fall fii de kenn mosu fee jóge di wëri feneen te nga fee toog ba làq ngërëm rek waaw nee na maam sax ne ko ah du da ngaa gis ma waaw eh, eh, eh, maanaam mu ne ko du da gis ma mu ko waaw mu ne ko ma xëy ne la maa ngi dem waaw mu ne ko waaw mu ne ko mënoon na maa teggee dem it te doo ma yëg dëgg la mu ne ko waaw mu ne ko ñaanal ma dem wallaahi moo am fulla de ndakate booba nag xam nga Cheikh Ibrahima nag njariñ la fa woon mhm. ndax booba moo rabat moo rabat sàkket yi daan defar néeg yi kër gi maam Cheikh nee na mu ñaanal ma nee na ñaanum njéppite nag la ma ñaanaloon moom. ñaanum njéppite. waaw nee nee na booba dana ko waa baax na demal foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu. maam Cheikh nee na ñaan gu ma mës am ci àdduna rek ñaan googu ma gën a dal ndax nee na ndakate ma jëm muy sëñ Bamba fa yàlla yëpp daje. dëgg la maam Cheikh nag nee na ma ànd ak sëñ Maxtaar Touré ak si Adama Guèye nee na ñu jëm Mbàkke Kajoor waaye si asadu loolu lu lu lu yéeme da am boo gisee waxtaan na koy tënk-tënk waaw taxañ taxañ comme ni nga wax ne mhm. euh, jotaay bi dafa xat dëkk te sëñ bi dafay day indi lu am solo te dama bëgg mhm. moom ñu koy jox temps bu bëri bi ndax li muy indi nii xam-xam la leeralal mhm. bi ngay xamee ne maam seex ànd nag suñ Makhtar Touré ak si Adama Guèye bàyyi Cheikh Wade Ndiaye ba léegi mooy nettali ne si yaaram mbay moo ne ko Cheikh Ibra Fall nee na nee na keroog bi ma ànd ak suñ Makhtar ak si Adama Gueye nee na ñu jëm Mbàkke Kajoor ah doom Ibrahima Thiam moo ne ko faal mu ne doom tànk bu ma séq gën a tàkk ci aras allahu akbar maam si xam ne na doom malayka yi ña ngay feetu ñaar fukki fan yi waaw de ci lay ko waaw mhm. nee na malayka yi ña feetu naan ay waay ndax yàlla ay waay ndax yàlla ay waay ndax yàlla kii nga xam ne bu gisee kay ginde jaam ñi jaam ñi oh, maam si xam ne na karoog ma jógee tay ba Dakar waaxu jëm Mbàkke Kajoor sëñ Maxtaar Touré ak siyaar ma Gueye ñu ne séq ma maam Cheikh nee na maa ngi gis leeri sëñ Bàmba yi mi ngi def lu mel ni ay faari oto nee na tàmp seewub dënd di ma niital yoon bi maa ko akbar maam Cheikh nee na may dox nee na may dox nee na may dox ba yàgg nee ma gis nag ma malayka yi di joxe ay message ca kaw maam Cheikh nee na doom xiin yi ma leen indil yéen a koy tëggi nu leen neex waaye na ma dégg malayka yi di ko tëggi ak ñi ñu koy tëggi doom bokku hmm. maam Cheikh nee na maa ngi dégg malayka yi naan ku fa njëkk gën bëgg gëm ak jëf fu waay yam sa bopp allahu akbar kon Cheikh Ibrahima Fall lam jaayante mi ngi noonu ko waaw loolu la jaayante maam Cheikh di dox nee na di dugg si biir Mbàkke Kajoor nee na kar ma dugg seen rek laa gis biir Mbàkke Kajoor leer naññ nag oh. la ko Sëñ Tuubaa ne woon fu ma nekk dana am leer bu ma fay def maam Cheikh nee nag ñetti fan ca laa dugg si biir Mbàkke Kajoor am na ñu naan ñeent waaye li gën a siiw te gën a wér mm-hmm. ñetti fan la seex Ibrahima Fall dugg si biir Mbàkke Kajoor Cheikh Adama Gueye moo ko jàllale ci néegu daaraam jàllale ko ci ku baax Mhm. wax na keroog bi nga xamee ne euh, Sëñ Tuubaa euh, nee na si yaarama amoo koo àndal mu ne ko amakay ah, mu ne ko woo ko. Mhm. wax na ne keroog bi Cheikh Ibrahima Fall ñëwee jàkkaarloog Sëñ Tuubaa dafa daanub jël nee na tànk yi dafa damm. nee na muy jàkkaarloog ku baax kii nee na di ko xool. Sëñ Tuubaa ne ko ana ku baax kii ana ndaw euh, kii sëñ bi looy wut. Mhm. mu ne ko dama bëgg ku ma yeggale ci yàlla. waaw bëri waana nag ñu bëri ñoo xam ne ñuy waxtaane Cheikh Ibrahima dañuy mel ni. kuy koo koo xam ne dañ naan Cheikh Ibrahima Fall sax gëmu doon yàlla ñu bëri ñu koy waxtaane nañ bu baax a baax Cheikh Ibrahima Fall yàlla la doon wut. waaw damaa bëgg yegg ci yàlla asadu. waaw booba Cheikh Ibrahima Fall 27 ans la am. ñaar fukk at ak juróom-ñaar waaw te man mii làq naa 27 ans nag te fii nii waxuma dox jéegub yàlla sax fi doxuma ko. ndeysaan xoolal ñoo fañ tolloon di wut yàlla booba Sëñ Tuubaa 30 ans la am. Hmm. borom 27 ans jàkkaarloog borom 30 ans naan ko bëgg yegg ci yàlla laa bëgg. Hmm. Sëñ Tuubaa ne ko su ma xamoon fu yàlla nekk doo fekk. ndeysaan maam Cheikh ne ko dama topp tànk bi yàlla na ba mu dugg si biir kër gi soo ma ko génnee la rek ma dem ndax man yàlla lay. moom it dëmbër la moom. waaw yàlla. ah waaw xam nga nag mbir mi. Ah. Ah, xam nga mbir mi. mbir mi daal lënd ci suñu bopp. waaye Cheikh loolu doy na waaye maam Cheikh fa mu doon deeyaalee. waaw Bamba yàlla moom moo ko ne. Bamba moo la moom ba bàyyi Moussa di waxee jaahil. déedéet a murit Moussa kàllaamullaahi. Hmm. mu dellusiwaat di tu bi samaani. waaye sëñ bi dellusiwaat ku ñëwoon na koy def Baye Moussa Ka du ndaw di. déedéet gon du gone mag la. waaw kay léegi nag kon mu ne Cheikh Ibra Fall nee na yàlla ci boppam. Mhm. moo ne ko Ahmadou Bamba moo la moom. Mhm. nee na mu jàkkaarloog moom ne ko damaa bëgg yegg ci yàlla. mu ne ko su ma xamoon fa yàlla nekk doo ma fekk mu ne ko dama topp tànk bi yàlla ba mu dugg sa kër gii neena naa si sëriñ bi daal di fatoon maam see daal di rëpp wàcc suuf moo tax diira ab yàgg. diira ñetti fan la ñëw. waaw waxtu wu xëyee. waaw génn Sëriñ ko ah bëgg mu ne ko bëgg ci yàlla rek mu ne ko su ma xamoon fa yàlla nekk doo fekk mu ne ko damaa topp tànk ba mu dugg sa kër gi te sax mbàkke li ma jàkkaarloo yow nga may wax a jaaxal waaye su ma la fekkutoon te fekk fi sa xam lu képp danaa fa taxaw liggéeyal ko ba la ma waxante woon ak moom mat nee na Sëriñ Tuubaa loolu def ko ab jël ne ko yow nag dafa mel dañoo nuroo ak jaayante ndax yonent bi ci boppam biddiw yii moo ko daan mu daan dox ci kaw suuf si pas-pas boobu laa am ba jot ci Xaadimu Rasuul hmm. nee nag Sëriñ Tuubaa xam ne kon kii mooy kam waxaloon waaw mu fam mbiram daal di joxe mas nay xibaar ak njébbaloo bay wax ne yàlla mi ko moom mhm. moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe suñu asadul xadim jërëjëf Baye Cheikh suñ xol sedd na lool day mel ni ubbi nga bunt boo xam ne munta ñàkk nag damaa wax ne cin li nag moom xorom si mooy Cheikh la waaw loolu moom yaakaar naa nii ma ko waxee si mhm. Amadul Muntaqa mii mhm. di teewe si jotaay bii mu tuddee masrabu saafia ànd ko waagis bu tarqiya ak bokkam yépp daa wax ne Baye Fall bu dëggal sëñ bi loolu nit ñi war nañ koo càmbar de. ndeysaan moo ma gënal sama bopp. te kiy wax loolu nag mag la ci yoon wi te moo tooge jataayu borom yoon wi. ndeysaan muy sëñ Touba. kon lii nga def muy taarix ci Cheikh Ibra Fall. Mhm. danañ ñëwaat ci yow ci ñaar fukki fan yi. Mhm. mu mel nii ci lañ ci lañ tàbbi tembe. Mhm. yim fësaloon ak jaayanteem bañ nangul ko ko nag. dinañ ci dikkaat ak yow. li may def rek mooy sëñ Cheikh